rawatin nag ci bis yi ñu nekk nga xam ne ci lañuy dàkk guddik laylatul qadr ñu ñaan suñu borom ci dàkk googu ñu koy dàkk mu defal nu tawfeexu ñu daj ko barkeb Cheikhul Xadim ñoo ngi am mbégte bu baax tey jii di ñëw di fàttalente ci wenn waxtaan woo xam ne ci lu jamono ji soxla la ndax xëy na danañ ci am ay dégg-dégg yoo xam ne ñun ñu bari moom lañu gàddu ci sunuy xel ak sunuy xalaat di dox ak moom te dëgg-dëgg nañ ko war a jàppee ñun ñi nga xam ne ay niti Sëriñ Tuubaa lañ des na mooy dëgg-dëgg lan mooy wërsëg ndax li ñu jàppee wërsëg def ko suñuy xel ñun ñëpp mooy wërsëg ak dëgg-dëgg lan mooy alal ak dëgg-dëgg lan mooy li ñuy wooyee barke ñetti yi yépp nag ñu tànn ci ay wat dañu cee soxla dégginu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañuy topp di xeeñtu am di xeeñtu am jàngaleem mooy lan la sëriñ bi jàppee wërsëg lan la sëriñ bi jàppee alal lan la sëriñ bi jàppee barke sëriñ ñu ngi ciy ànd ak euh, oustaz sëriñ Abdul Xaadir Bousso alxaaji Cheikh nga xam ne mbooloo mi miin nañ ko bu baax ci liggéey bi miin tamit taxawaayam ci yëngu-yëngu yi xam-xam yi yoon murid yi di taxaw yépp daanaka kuy xool yenn liggéey yi nga xam ne dañ koy liggéey ci dëkk bi ci xam-xam neewaana doo ci ña nga ñàkk cee gis turam kon day mel ne dañoo tànn koo xam ne sa yu ñu waxee ne sëriñ bi nii la déggee baat sàngam nii la déggee déggin sàngam saa yu ñu ko waxee rek war nañoo jël wax jooju jàpp ko ndax ku xam la ci gëstu mbirum sëriñ bi ni ma ko waxee bari na ay yëngu-yëngu yu ñuy def yoo xam ne di ko defal di ko def ci njàngaleem sëriñ bi ne waa na doo ci gis turam kon suñ ko joxee waat yooyu ngir mu faram fàcceel ñu ko ci déggeenu bi lu ñu wax rek dees na ko mën a jàpp ne déggeenu sëriñ bi la kon bu sëriñ Abdou Khadir bu waxee ba noppi nu ñu jàppee woon wërsëg nu bokkut ak ni mu waxee na loolu ko sëriñ bi déggee bu ñu fi jógee ñu jàppee ko noona lu ñu jàppee woon alal bu nu waxee lan la sëñ bi jàppee alal ndax lu mu wax ne moom la sëñ bi jàppee alal noonu murid yi loolu sëñ bi jàpp bu nu ko jàppee moom la ñu war a jàpp suñ ko jàpputoon dañoo war a bàyyi nag dañu jàpp jàpp ko lu mu waxee tamit noonu la sëriñ bi jàppee barke ñunu tamit bu ñu fi jógee noonu la war a jàppee barke kon nu ñaan suñu borom defal ko tawféex defal nu tawféex noonu nii ñun ñii di déglu saa yu ñu dégloo ba noppi am ci ak dégg ak topp kon sëñ Abdou Khadre Bousso bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin loolu moom dëgg la moom sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp bi ndokkeel ñépp di ñaan suñu boroom borom tëbbuñu kàttan ba ni ñu tàmbalee koor gi mu may ñu àggalee ko noonu lépp loo xam ne def nañ ko ci jëf ju baax mu fulal ñu ko lépp lu ñu ci def ci ab safaan mu jéggal ñu ko te loolu mën na ko te def ko yit du dara ci moom ziyaar yi ak ndokkeel yi ak ñaan yi nag ñu ngi ciy jiital sunu kilifa bopp muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullah wa raa waaye noonu lañ koy ñaanale mbokkam yépp ñu topp ci ginnaawam ñëpp di ko jàppale ci liggéey bi noonu it lañ koy ñaanale daayira muqaddamatul xidma ci njiital sunu kilifa moom it bi sunu sëriñ daara bi suñu lépp muy sëriñ afiya bu sa imaam di rafetlu taxawaay bu bu baax a baax Euh, sëriñ Fallou jërëjëf ci ubbi gi nga ubbi waxtaan wi mbokk yi tey dañoo gisoon ni war nañoo waxtaane ay dëgg-dëgg yu aju ci wërsëg ak alal ak barke ci ni ko sëriñ Touba gisee radiyallahu anhu ci biir loolu danañ njëkki rek benn introduction benn laytaay loo xam ne mooy laytaayal waxtaan wi laytaay gi ci jiitu mooy ñun ñëpp seetlu nañ ne jamono ji ñu nekk jamono la joo xam ne nit bu fekkente ne dafa bëgg a dem ànd ak nit ñi il faut mu dajale kàttanam yépp il faut mu am loolu ko doy sëkk ci wàllu spirituel ci wàllu ruux il faut mu jëfandikoo xelam bu baax a baax il faut mu jëfandikoo kàttanu yaramam il faut it mu jëfandikoo ay man-manam bu deful loolu rek day gis ne des na gannaaw wala boog mu ngi nekk al topp yoo xam ne mi ngi topp lu mu xamul. ndax ñëpp seetlu nañ ne dund gi ñu dund. wala boog nit ñi ëpp ci ñun dund gi ñu dund dund la boo xam ne yemalewut bu dund bu maanu ndax da gis ñu baree bari yemale ko rek ci sàkku matière waaye bàyyi lu jëm ci wàllu ruu bàyyi lu jëm ci wàllu xam-xam loolu moo indi daanaka concurrence bi yépp mi ngi yam ci alal ci alal la tàmbale ci alal la yem koo gis rek alal lay wax ak poñetum àdduna ak lu aju ci wërsëg ak bari na loo xam ne dañuy jàpp ne léegi ku am alal rek mën nga koo am waaye dañuy jàpp ne it loo bëgg a boo amee alal mën nga koo fànq dañuy jàpp ne boo amee alal loo bëgg a muur mën nga koo muur loo bëgg a suturaal mën nga ko suturaal fekk na ne lislaam moom bu dee alal da cee doxi doxin wu diggu doomu doxin woo xam ne dafay am ak équilibre lislaam dafay jàpp ne alal ji nga xam ne moom la nit ki yoon daf ko ko war a sàmmal waaye it da ko war a sàmmal mbooloo lislaam dafay jàpp ne àdduna ji ñu nekk ab bayukaay la tool la boo xam ne dañ koy bay fa mu ñu koy ñu koy jëfandikoo mooy àllaaxira kon loolu lu mat a xam la mooy daal alal mujj la nekk banqaas boo xam ne daanaka moo moomee wàllu dund gi yépp ñaareel bi mooy bari na lool it lu ñuy juum ci lenn ci masala yi nga xam ne dafa aju ci dogalub suñu borom rawatina masala mu aju ci wàllu wërsëg da gis ñu baree bari ci jullit ñi bu ñu jàppee ne wërsëg moom seen wërsëg bind nañ ko yàlla noppi na ci rek dañ naan jëratul ñuy sonn jëratul ñuy liggéey jëratul ñuy xalaat jëratul ñuy wut ay tëralin yoo xam ne moo ñuy may alal ñoom dafa mel ne dañuy jaawale li ñu yàlla sant ak ni yàlla bëgg ñu mel ko waaye dañuy jaawale yi nga xam ne mënees na koo saafara mënees na koo wutal euh, moo mënees na cee am ay pexe ak yi nga xam ne kenn mënu ci am pexe maanaam mu ko mu ko yàlla dogari rek noonu nga koy jële ci biir loolu da gis ñoo xam ne dañuy jël benn exemple koo xam ne dañuy jàpp ne kilifa la yorutoon dara wala bokk li ko yàlla dénkoon ci alal bariwut wala ñu seetlu ne ku dëddu la waaye duñu xam lan moo tax mu won ginnaaw alal lan moo tax mu dëddu ci yan condition li dund ak lan moo tax melokaan wii mu mel mu taamu ko loolu tax na ba ñu baree bari nangootuñoo liggéey daanaka dañuy gënal tayeel ci yëngatu lii mbir la moo xam ne ñu baree bari ci jullit ñi ñu ngi koy jànkonteel waaye noonu nga ko mën a waxee ci wàllu barke bari na fu ñu koy ku ñu koy giñ te la mu yor du barke bari na ku ñu naan day sàmm fekk la muy def mais la ko tudde na neen bari na fu ñu jàppee ne am na recherche maanaam alal bari na fa fekk alal bariwu fa sëriñ bi nag radiyallahu anhu dafa amoon taxawaay bu leer nañ ci leeral dégg-dégg yi nga xam ne day aju ci suñu dund di ko baaxal di ko barkeel di ko neexal muy ay dégg-dégg yoo xam ne bis bu ñu ko déggee ba noppi gëm ko dund ko lu baree bari mën naa soppi ko ci suñu dund bokk na ci dégg yi lu aju ci wàllu alal mooy lan li lew mooy lan li araam mooy lan lan mooy wërsëg lan mooy barke lan mooy li sëñ bi tuddee ak dafon wal jalbu lan mooy dëgg-dëgg li muy wax al maslaha ak al mafsada lan mooy dëgg-dëgg li muy wax an nafon wa durru lan mooy dëgg li mu tuddee dëddu li mu tuddee wakiilu lan mooy dëgg-dëgg li mu tudde bëgg àdduna lan la tudde euh, am-am boo am njariñ ak ñàkk buñ ŋàññi yooyu yëpp ay mustalahaat la ay waxin la yoo xam ne dañ ko fekk ci mbindum sëñ bi muy ay waxin yoo xam ne jar naa jàngat jar naa analyser ngir suñu dund gën a mën a yomb waaye it ñu mën koo teg fi nga xam ne foofu la ko yàlla bëgg mu tege fa bu dee waxtaan wi nag bunt bii la bëgg a fëgg mooy buntu jéem a jàngat yenn ci ay déggin yoo xam ne sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na ko ci yenn baat yi nga xam ne day jagal suñu dund mu ñu tànn ci tey ñetti déggin bu ci njëkk mooy wërsëg ba ca tege mooy barke ba ca tegee mooy alal yii ay déggin la ay yu am ay maanaa yoo xam ne nit ki bu ko xamee dana tax mu réussir ci ak dundam mu am ci ndam waaye mbooloo mi bu ñu ko xamee dana tax seenu dund mën a neex waaye nag ay déggin la yoo xam ne ñu baree bari ñu ngi ciy juum waaye it xel yu baree bari mi ngi ciy gëlëm bari na xam ne ñu ngi koy tuddee alal fekk wërsëg la waaye bari na fu ñuy waxee barke ci loo xam ne wërsëg kase la daray barke amu ci léeg ñu jël wërsëg teg ko ci palaasu alal naan diw sàngam ku bari alal la diw sàngam ku bari ku yàlla may la fekk wërsëg rek la yor kon lii indi na ay jafe-jafe yu baree bari ci wàllu déggin waaye ci wàllu doxalin moo tax nag ñu bëgg koo leeral tey incha allah Euh, baat bi ci njëkk muy wërsëg nu ko sëriñ Touba déggee ak yan jeexit lay def ci nit ki bu ko déggee na mu ko war a dégg wërsëg ni ngeen ko xamee ci arab dañ koy wax dañ koy wax di ko waxee baatu ar rizq ar rizq nag bu ko arab waxee mooy lépp loo mën a jariñoo wala lu ñu la jox moo xam dañ la koo jox wutal la ci àpp wala ñu bañ la ci wutal àpp boo doon wax ay wërsëg ci arab da nga naan arzaq ñëw na ci alquran suñu borom wax ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakum al mawt borom xam-xam yi bi ñuy firi loolu dañoo wax ne yàlla li mu ci jul mooy na ngeen di joxe ci li leen yàlla wërsëgal ci alal ak ci daraja ak ci xam-xam kon fii rek dañuy daal di commencé di dégg ne wërsëg yëmut ci alal alal mën naa nekk wërsëg daraja mën naa nekk wërsëg xam-xam mën naa nekk wërsëg beneen aaya muy wax naa nooy mimma razaqnaahum yunfiqoon ak aayaat yu baree bari yoo xam ne ñëw na ci alquran ñu cay fekk baatu wërsëg bu ñu demee ci alxuraan yi danañ ci fekk suñu boroom di jëfandikoo baatu raziq aji wërsëgal borom xam-xam dañuy wax ne baat boobu moom nit mën na koo bokk ak yàlla nit mën nay wërsëgal yàlla mën nay wërsëgal mooy raziq raziq bu ñu nee nit kuy wërsëgal mooy nit koo xam ne yàlla daf ko dafa jaarale ci loxoom wërsëgu jàmbur kooku la ñu wax kuy wërsëgal waaye kay wërsëgal dëgg-dëgg nag ka ci ginnaaw mbir mi kii yëngal machine bi dëgg-dëgg mooy suñu borom liy wane ne nit mënees na tu tudde raziq mooy li ñëw ci alquran suñu borom wax ne wa jaalna lakum fiha maaish wa man lastum lahu bi raziqin ñoo leen defal seenu dund waaye yéen seen yoon nekku ci seen wërsëg foofu jëfandikoo na fa jëfandikoo na fa baatu raziq beneen aaya muy wax naan wa yaabuduuna min duni illahi ma la yamliku lahum rizqan min alsamawati wal ardi cheyan wala yastatiun mooy ñii may wax seen wërsëg du jaar ci seen loxo ci genn anam doonu leen ci dara bu dee wërsëg nag ci te maanaam nii moo ñu gën a ñor mooy ci borom xam-xam yi bu ñu waxee wërsëg luñ ci jublu Qaadi Iyaad dafay wax ne baatu wërsëg foo ko gisee ci alxuraan wala nga gis ko ci xadis wala nga gis ko ci waxi gaa yu baax yi xamal ne mooy li la yàlla jox ak lu mu mën a doon kon li la yàlla jox mën na nekk lu lew mën naa nekk lu araam loolu mooy wërsëg kon wërsëg bu ñu ko waxee ci ahlu sunna wal ñoom dañuy wax ne wërsëg mooy lépp loo xam ne yàlla daf ko wommat teg ko ci say loxo nga jëfandikoo ko loolu rek mooy wërsëg kon ci biir loolu dañuy gis ne wërsëg am na maanaamu yaatu mën naa dugg it ci domaine yu yaatu ndax dañ naan lépp loo jariñoo rek ak lu mu mën a doon moo xam lu lew la moo xam lu araam la wërsëg boobu imam Xurtubi day wax ne wërsëg ca dëgg-dëgg mooy lu nit ki dunde lu lu dunde lu mooy lépp luy dund lépp luy dund lu mu dunde te loola di des ci yaramam wala muy participer ci ruuxam ni muy màgge loola la ñuy wërsëg loolu lay loolu lay wax naan wa risqu xaqiqatuhu maa yatagadda bihi alxayu wa yakunu fihi baqaau ruuxihi wa namaau jasadihi kon wërsëg fii dañuy gis ne wërsëg kon yaatu na wërsëgu doomu aadama da ci dugg wërsëgu ku dul doomu aadama yi da dugg muy lépp luy ñukk ci kaw suuf mu ngi Euh, ngundé di wala boog malama yi ak mala yi ak bàyyi ma ni nga noonu bu ñu waxee wërsëg lu ñuy lekk da ciy dugg laneen luñ dul lekk da ciy dugg wërsëg mooy lépp loo xam ne rek faje nga ko say soxla jariñoo nga ko kon mën naa nekk aw ñam mën naa nekk ak jur mën naa nekk laneen loo xam ne dafa am ruux mën naa nekk ay garab yu meññ mën naa nekk ay yër mën naa nekk alal joo xam ne danga koo denc di ko dunde lu lépp wërsëg la waaye nag lépp loo xam ne jariñoo woo ko ak donte dañ koo mën a jariñoo waaye yow jariñoo woo ko jotoo koo consommé loolu kenn du ko tuddee wërsëg dañuy wax naan ku amoon dara man koo jariñoo te jëriñoo woo ko jàppat la nga am bu sa wërsëg waaw ndax lii sa wërsëg mooy li nga jariñoo kon mën ngaa yor alal ju bari fekk ay wërsëg yi jàmbur rek nga yor nit it mën na laa romb mu yor alal muy nga koy gis ci poosam fekk yow sa wërsëg la ndax yaa ko war a jariñoo kon loolu moo tax boroom xam-xam ni doon wax naan koo gis ci àdduna balaa faatu dana jël wërsëgam kenn mënta lekk wërsëgu jàmbur kenn mënta lekk wërsëgu jàmbur kenn bu lekk sa wërsëg mënoo lekk wërsëgu kenn loolu la Sëñ Tuubaa di wax naan ar risqu fi lxalaali laysa yaqsuru wa qasruhu alayhi laysa yansuru wërsëg kenn du ko yemale rek lu law déedéet ndax nit day jëfandikoo lu lew léeg-léeg it mu juum jëfandikoo lu araam waaye lu mu xas jëfandikoo rek dañ ko tuddee dañ ko tuddee wërsëg bayit woowu bi mu koy sarax dafa wax ne kenn du wax ne wërsëgu jaam wi lépp day lew déedéet dañ naan lépp lu mu jariñoo rek wërsëgam la ak donte lewut kon foofu li ñu ci mën a tënk mooy lépp loo jariñoo ci sa dund moo xam danga koo lekk wala da koo naan wala danga koo sol wala anam goo ko mën a jariñoo rek moo xam yaa ko moom moo xam moomoo ko moo xam lew na moo xam dañ koo sib moo xam dafa araam boo fekkee xas nga ko jëfandikoo rek loola wërsëg lañ ko tudde ci charia loolu wërsëg lañ ko tudde ci charia liy wane ne wërsëg mën naa lew mën naa araam nag boroom xam-xam yi cibbi nañ ko ci laayee ji nekk ci sooratu saba fukkeelu aaya ak juróom li suñ borom di wax naan kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun xafuur na ngeen di lekk ci wërsëgi seen borom waaye fii daf cee teg wa rabbun xafuur ak yàlla moo mën a jéggale ni fi mu tuddee njéggal rek kon daf lay wan ne wërsëg léeg-léeg mu nekk lu araam loo xam ne dafay laaj tuub kon lii mooy wërsëg ca dëgg-dëgg nii la ko ahlu sunna jàppe am na na kuréel gu ñuy wax moo mu'tazila ci wàllu pas-pas ñoom dañoo jàpp ne wërsëg mooy li nga moom waaye loolu njuumte la dañuy jàpp ne wërsëg bokkut ak li nga moom bokkut ak li nga liggéey déedéet kon foofu baax na ñu teqale lan mooy différence ban différence moo am entre lan moo teqale diggante wërsëg ak pàggateef ak moomeel wax nañ léegi ne wërsëg mooy lépp loo jariñoo kon mën naa am mën naa nekk loo fàggu mën naa nekk lu kaneen fàggu léeg-léeg sa wërsëg mën nga koo jote ci li nga liggéeyal sa bopp waaye léeg mën nga koo jote ci lu liggéey sa wërsëg léeg-léeg mën nga koo jote ci li nga moom waaye léeg-léeg mën nga koo jote ci li keneen moom loolu moo tax it mu xal Xaldun dafay wax ne nit saa yu demee ba mën a liggéey day daal di jug di daan dooleem ngir mën a dépenser ci ay euh, aajoom yi mënta ñàkk daal ne bu boobaa nag liggéey bi muy liggéey am na ci liggéey yoo xam ne méttiwut da koy accompagner rek lu mel ne taw bu dee fekkee day bay day xaar taw bi bu taw bi kii moom muy déq muy muy ji ak di déqee ko def di góob ak di def yëf nga ne day accompagner rek taw bi waaye ki saxal meññeen mi dëgg-dëgg mooy taw bu ko defee nag lépp loo mën a fàggu ak noo ko mën di fàgg ko bu fekkee jëfandikoo nga ko loolu la ñuy bu fekkee jëfandikoo ko yow wërsëg waaye wërsëgu jàmbur loolu misaal mi ci gën a leer mooy ki nga xam ne biñ ko xamee ba ko noppee gis dañoo gis muy dang-dangi ci di alal am na ci loo xam ne moom jariñoo na ko lam jariñoo wala mu dugal ko ci barab boo xam ne daf koy jural ay jëf yu baax yu koy fekk ci bàmmeelam yooyu wërsëg la waaye li nga xam ne da ko fee bàyyi ñu donn ko ko loolu du wërsëg alal la alal la kon wërsëg mooy li nga jariñoo waaye lu bokkut ak loolu rek du wërsëg wërsëg nag am na ñaari xaaj ci ni ko Sëñ Tuubaa jàngale ndax nit ñi dafay siiw ci seeni nopp lool fu ñu waxee wërsëg ñu jëmale ko ci wàllu alal sëriñ bi nag xamal nañu ne wërsëg yemul ci alal waaye am na lu ñu tuddee wërsëgu wërsëgu saahir ak wërsëgu baatin wala boog ñu koy tuddee wërsëgu yaram ak wërsëgu ruux ak xol wërsëgu yaram wala wërsëgu wërsëg wi ñu mën a teg loxo mooy wërsëg wi nga xam ne mooy participer ci ni sa yaram di màgge mooy liy dundal yaram kon bu ñu jëlee lu mel ne ak lekk gi nga xam ne da ko jël lekk ko loolu sa wërsëg la wërsëgu yaram la naan gi nga naan wërsëgu yaram la yi ngay sol di ko jariñoo loolu wërsëgu yaram la wërsëgu zaahir la wërsëgu ruu nag wala wërsëgu baatin mooy wërsëg wi nga xam ne day dundal ruu di dundal xol kon loolu mooy lu aju ci xam yàlla ak li ñuy wax ilmul yaqin ak eh, yenn yi nga xam ne suñu borom daf la koy wan di la ko yenkeewal ak mbalaan yi nga xam ne suñu borom daf koy muril ngay xam loo xam ne nit ñi nga bokkal nekk ci kaw suuf duñ ko xam loolu mooy wërsëgu roo loolu mooy wërsëgu baatin bu dee wërsëgu yaram moom lii njariñam mooy day yokk sa yaram kàttan daf koy protéger moo tax moom dafa am fu muy tàmbalee am fu muy yam nit ki fii ñu ngi dund rek mën naa am mi ngi jot wërsëgu yaramam waaye saa yu demee ba faatu euh, wërsëgu yaramam daal di jeex wërsëgu yaram woowu mën naa ñëwee ci anam goo xam ne dalay indil ak texe waaye mën naa ñëw ci anam goo xam ne daf lay indil ak texe ndax gis nañ ku yor alal ba tàyyi teewut muy dund dund gu naqari bu dee wërsëgu baatin nag wala wërsëgu ruu moom ay xam-xam la lay jox yoo xam ne saa yu ne day ànd ak texe gu sax gu sax faw suñ borom nag moo warlu jaam bi ñaari wërsëg yépp waaye wërsëg bu njëkk bi daf ne ko mu fàggu ko muy wërsëgu yaram daf ne ko mu mu wakiil lu ci ba noppi ci sabablu muy wërsëgu yaram waaye wërsëgu ñaare bii moom dañ koy fàggu muy wërsëgu xol wërsëgu róo wërsëgu baatin lu ñuy fàggu la lu ñuy wut la ci Sëriñ Tuubaa nag ak ci suufiyanke yëpp dañoo jàpp ne wërsëgu ruux moo gën a tedd moo gën a mat bàyyi xel moo gën a mat a sàkku mu tasawuf yi dañuy wax naan suñ borom bu la joxoon alal judul jeex nga ciy lekk lekk yi gën a neex nga gis keneen koo xam ne daf koo jox yow wërsëg xam yàlla ak ilmul yaqin na nga xam ne ba boobaa kee mu jox wërsëg bu xam-xam moo la ëpp ëppale wërsëg foofu moo la ëpp sens foofu ndax moom daf koo jox wërsëg boo xam ne mooy dundal ruuxam daf koo jox wërsëg woo xam ne mooy dundal xolam daf koo jox wërsëg woo xam ne mooy dundal bakkanam lii nag ñi ngi ko jëlee ci benn ndénkaan boo xam ne sëriñ bi da ko doon dénk kenn ci mag ñi ndénkaan li lu sëñ bi bindal boppam la ci loxoom dafa wax ne bismillahi rahmani rahim sallallahu taala ala sayidina muhammadin nabiyihi alkarim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alwaxidi razaq maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom rek moo yore wërsëg wasalaatu wasalaamu ala almustagni bi razaqi an il arzaq di julli tey ñaan suñ borom dolli xéewal ci yonente bi nga xam ne dafa doyloo yàlla mi nga xam ne moom rek mooy wërsëgal ba soxlaalu kenn dara daa ciy teg ne daa di wax ki mu doon dénk ne ko na nga sant yàlla mi nga xam ne moo wane ne wërsëgu ruu moo gën a tedd moo gën a am maanaa wërsëgu yaram ndax wërsëgu ruux ay maarif la lay indil day tax nga xam yàlla xam yàlla nag lim lay indil mooy dund gu neex ba faw loolu la lay jural bu dee ñaareel bi nag te mooy wërsëgu bitti te mooy wërsëgu zahir wërsëgu yaram moom day day yokk sa yaram kàttan rek te loolu dafa am fu tàmbalee am fu mu yàgg daal ne suñu borom moo digal jaamam yépp ñu sàkku wërsëgu ruux waaye nag wërsëgu ñaareel bi te mooy wërsëgu yaram moom daf leen ko warloo ala kulli xaal dañ ciy jot daal ne gaa yi yàlla yeewu dëgg fu ñu toll dañuy sàkku la leen suñu borom digal ñu sàkk ko te mooy wërsëgu ruux te loolu mooy rek ñu sax ci santaane yi bàyyi tere yi bu ñu ko defee dañuy daal di am barkeb wërsëgu yaram bu dee ñi nga xam ne yeewuñ nag ñoom dañuy bàyyi li leen suñu borom sant ñu sàkk ko nekk ca la nga xam ne suñ borom warlul na leen ko ba noppi te mooy seen wërsëgu yaram bu ko defee duñ ci am benn duñ am xam-xam duñ xam yàlla. waaye it duñu am seen wërsëg du duñ ca am du am barke buñ mën a dund daal ne li ñu suñ borom sant leen rek la mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaamu yàlla la yàlla sant waaye li ñu war mooy wërsëg bi nga xam ne moo ñu war moo war a yor suñu suñu kàttanu yaram ndax suñu borom moo wax ne wa maa min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha daal ne ko yow mbokk mi maa ngi lay digal nga nekk abdan naafiya na nga nekk jaamu yàlla mi nga xam ne njariñ ci moom rek lay jóge bu boobaa lu yàlla namm nga jariñoo ko dana la ko jox dana ko teg ci sa loxo waaye lu la lu yàlla bëggul nga jariñoo ko dana la ko fanqal ba noppi dana la musal ci seytaan yi dana la musal ci bakkan bi nga xam ne daf lay yóbbu ci naka su dul noonu na ngay rafet njort ci suñu borom ak ci soppeem yépp boobaa da nga da da nga da jariñu ci lépp loo xam ne suñu borom daf la ko tànnal kon fii ndénkaan bi muy muy gudd muy gàtt liñ ci mën a tënk rek mooy sëñ bi dafa bëgg a wane ne wërsëgu roo wërsëgu wërsëgu xol moo gën a mat a sàkk ndax moom mooy am meññat bi nga xam ne day des ba faaw moom it liñ koy sàkkoo mooy jaamu yàlla ak jëf ju baax te xam nañ ne jaamu yàlla ak jëf ju baax mooy euh, mooy bëgg-bëgg bi nga xam ne wala objectif bi nga xam ne moo tax suñu borom wàcc nit ci kaw suuf. wërsëgu nag ñi yew ñëpp ñi xam yàlla ñëpp moom la ñuy sàkku ji bu ñu ko sàkkoo rek lañ bëggoon ci wërsëgu yaram day daal di ñëw ñi nga xam ne nag xamuñ yàlla wala boog seen xel dafa des ñoom seen wërsëgu yaram rek ci la ñu nekk boobaa nag wërsëgu yaram duñ ca am loo xam ne waruñ ko woon a am lu yàlla lu ñu am ko ca duñ ko ca am ba noppi it lañ doon dabb duñ ko am waaye it lañ waroon dabb duñ ko am te mooy xam suñ borom subhanahu wa taala li Euh, gaay yi yàlla yi ñoom di gën di fonk di sàkku wërsëgu ruux ñi sàggan di xool rek wërsëgu yaram loolu dafay dellu ci kenn ku ci ne na ngay xoolee àdduna waaye kenn ku ci ne sa xaal fa mu toll kenn ku ci ne sa sa ni ni li nga ñam ci yàlla fi mu toll kenn ku ci ne sa maqaam fi mu loolu boo demee ca euh, téere bi ñu tuddee alxikamul ataiya am na ca ma boo xam ne dafa koo tuddee daf koo tëggee nii li yunfiq du saatin min saatihi alwaasiluuna ilayhi wa man qudira alayhi rizquhu assaairuna ilayhi loolu borom xam-xam yi bi ñu koy saraa ku mel na ibnu ajiba ak zarruq dañoo wax ne ñi nga xam ne dañoo xam yàlla di dox ba àgg te suñu borom duñu amati soxla ci àdduna bay sàkk sagu yaram ñoom daanaka dañoo seen seen seen xol dafa jeex ci àdduna dañoo jóge ci aalamul ashbaax dem ci aalamul arwaax monde bi nit ñuy dund ñoom dundatuñ ko dañoo jóge ci aalamul mulk dem ci aalamul malakut moo tax yàlla daf leen di tëbbu ay wërsëg yi xam-xam yu dul jeex daf leen di ubbi la ay magasin yi dégg-dégg moo tax bu ñu waxee rek day feeñ ci wax dangay ngay gis ne dañuy génne ay xikam dañuy génne ay wax yoo xam ne da ngay xam ne rek ci suñ borom la jóge lu leen yàlla yenkeewal la lu leen yàlla sol la waaye nekkut lu loo xam ne nit mën na koo amal boppam te loolu jàpp naa ne ku bàyyee xel ndénkaane sëñ bi ku bàyyi xel waxi sëñ bi ci wasaaya yi mu def ci xikam yi def ci tomb yi mu daan def dañ ci seetlu wërsëgu ruu yi ni ciy feeñe bu baax a baax bu dee ñi nga xam ne àggaguñ ci suñu borom nag waaye ñu ngi dox jëm ca ñoom ba tey comme seen xel dafa nekk ci àdduna moo tax lu baree bari la ñuy génne du nekk xam-xam waaye wër mu lay nekk ay defe-defe lay nekk rek ndax ñoom suñu borom ubbi la gu leen maa ngi seen xam-xam ñoom la war ci ñoom mooy ñuy jihaat ak seen bopp moo tax it bu ñu lay jox duñ la mën a jox lu bari ndax duñ la jox lu ñu amut waaye nag ku ca góorgóorlu mën ngaa àgg ba mën a am ci wërsëgu ruu yooyu dañ daan wax naan isa aradta an an yattasia alayka ilmul azwaq faqta anka maddat al boo bëggee am la gaa yi amoon da nga bàyyi li yi njëkkante li yi njëkkante nag mooy wërsëgu kaw yi euh, kon loolu mooy ñaari xeeti wërsëg yi am bu ñu jëlee exemple ci sëñ bi nag dañu gis ne ñaari wërsëg yépp yàlla joxoon na ko mën naa cee jël benn misaal rek ci benn texte boo xam ne daf ñëw ci minanul baaxil xadim bu moom Mamadou Bachir sëñ Bachiru dafay wax ne alal li ci yàlla joxoon suñ Tuubaa kenn xamul lu mu toll alal ndax dañu ñun ci suñuy gëstu jàpp nañ ne jamonoy sëñ bi bokkoo bu bu fekkente ne fii ci Afrique nekk fi woon ki ëppoon alal mën nañoo jàpp ne bokkoon nañ ci ñi ëppoon alal ñu baree bari dañuy imaginer sëriñ bi jàpp ne xëy na yorutoon alal dëgg la alal yitteelu ko woon waaye li ko daan ñëwal ci alal moom néewaa na nga dem feneen fekk ko fa moo tax suñu Basiiru ne ni ko daal ñëwal ci alal ci tolluwaay bi ak melokaanu kenn xam lu waaye nag moom musu cee am soxla danga daan gis ay téeméeri téeméeri nit ak i junniy junniy nit ñoo xam ne dañ daan sonn lool di daj lu ne ngir jox ko addiya nee na ni alal ji daan wala ci moom boo xool day mel ne taw bu waame bu sax taw boo xam ne day taw rek bañ a xam ne du sebet nee na nag lépp mi ngi ko jëlee ci eh, maa ngi say suñu borom yi nga xam ne mooy wërsëgal ñëpp waaye nee na wërsëg yooyu nit suñ Tuubaa daan doxale mooy rey dafa daan mel ne xaarisin yu xassim wa xaasinin yunfiq moom day mel ni rek yàlla dafa teg euh, ci loxo wërsëg yooyu ngir mu war koo séddale ngir mu war koo wattu dépensé ko yafaalu bi yadihi haa wa haa foo ko fekk day dépensé ci loxoom jëlal am jëlal rek la daan wax yaminan wa shimaanan da daan dépensé ci ay joram di dépensé ci càmmoñam nee na boo ko bëggee melal danga koy mën ngaa wax ne day mel ne moom la aaye bii doon waxal aaya bi suñu borom di wax naan wa man razaqnaahu naa rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran am na ci jaam ñi ñoo xam ne dafa leen wërsëgal fuñ toll dañuy dépensé ci lu feeñ ak ci lu nëbb waaye nee na ni ma amee woon wërsëgu alal noonu noonu la amee woon wërsëg yi xam-xam nee na nag alal moom daw ko bàyyi xel yitteelu ko waaye xam-xam nag moom daw ci doyal moom xam-xam ni mu ci meloon mën nga koo nuróole jën ji nga xam ne fu mu toll gimiñam mi ngi ci géej waaye nag du doyal ci géej mukk du doyal ci géej mukk waaye ni mu daan dépensé ci alal ci xam-xamam ni mu daan tabee ci xam-xamam boo koy xoolit mën nga koo nuróole géej gi nga xam ne day yaatu ku ñëw mu ku ñëw mu jox la la nga ca soxla moo tax euh, al Alawi bi mu koy woy daf ko woye ne am amwaalu minka satara madara alal de ni ni nga koy def moom ëpp na alal ni nga koy def ëpp na alal ji day tusaaroo jóge ci yow nekk ay dog it dog it ku ñëw rek jël sa wàll banaanuka laa tubqi wa kaffuka laa tadar sa tenq yi du bàyyi dara waa sa baaraam yu bàyyi dara sa tenq yi du bàyyi dara mooy alal ji ni mu ñëwee noonu nga koy dépensé waat suñ basiru tëj ci na ñaari wërsëg yëpp lu baax la ndax xam-xam bi mu amoon moom sëriñ bi yàlla rek a taxoon mu mu mu mu ko doon ko doon wut moo tax it ba mu ko amee rek daf ko daal di jëfee alal ji nag musu koo fàgg moom alal yëpp daf daan daf ko daan ñëwal noonu rek musta war ay fas di fàggu alal musta ami oto wala ay gaal ngir wuti alal musta laaj kenn dara musta tukki tukki yu ngir wut alal musta bay ngir wut alal musta tukki tukki yu danger ngir wut alal waaye nit ñi daal ñu daan ñëw rek daan ko sotti seen addiye waaye moom lu mu musaan di jël lu leew lay doon fu mu ko musaan di dugal ci fu leew lay doon moom li ko yittee doon mooy topp suñu borom ak liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla faye nag ba tàggatal ko nit ñëpp kenn ku loo am di ko indi suñ basiiru tekki ne mos naa koo dégg ci benn jotaay bu mu ñu doon waare moom sëñ bi muy wax ne ah mbir mu yéeme di xam naa ne xew na daal ne da ngay gis ñaari waay yoo xam ne kenn ki day ëpp doole nit ñi di leen di leen jiital ci aw yatam ngir bëgg a am seen alal lu tax nit ñi doo duñ ko jox dara wala ku koy jox dara it bala ko bala ko jox dara day fekk da ko caa forcer. nee na loolu misaal bi mooy buur yi buur yi dañ daan jiital nit ñi di leen laaj ay impôt di leen laaj ay galak di leen laaj yu baree bari te nit ñi bala ñu leen a jox daanaka dañ koo fuqate ci ñoom daana gis koo xam ne du laaj kenn waaye fu ne di fa jóge di ko andi ci moom daan ne te li gën a lii gën a metti kii joxe àddee mooy kii muy joxe àddee bu ñëwee bu ko gisut wala mu bañ koo nangu kon loolu daf lay wax ne ñaari wërsëg yëpp amam na kon loolu mooy wërsëg lépp lu nit ku jariñoo ci ak dundam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax naan doomu aadama fu mu toll daan sama alal sama alal te fekk yow sa alal amoo ci lu may li nga lekk mu reesal ab jàmm ak li nga sol ba mu ràpp ak li nga saraxe mu jiitu la ci sa bàmmeel di la fa xaar léegi boo xamee ne loolu mooy wërsëg am na ay jeexit yi muy def ci yow jeexit ja ci jiitu mooy ci wàllu pas-pas li nga war a gëm mooy ne yàlla moom moom lépp nu ko neexit lay doxalee waaye nguurug yàlla gi kenn du ko tuddee wërsëg ndax boo ko tuddee wërsëg rek mooy kon day laaj ne dafa war a am ku ko wërsëgal te yàlla moom mooy wërsëgal waaye kenn du ko wërsëgal bokk na ci liñ ci war a gëm it ci wàllu wërsëg mooy ñu gëm ne wërsëg yépp ci loxo yàlla la nekk ku ko neex mu jox ko ca la ko neex suñ boroom moo wax ne képp kuy dox ci kaw suuf maa la yoreel sa wërsëg ma min daabatin fi l ardi illa ala ki nit ku ne lépp luy dox ci xaj kaw suuf xam naa fa dëkk xam naa fa nekk te lu mu yàgg-yàgg wërsëgam dana ko fekk ci ay loxoom saa yotee rek dana ci jot wa yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha daal ne lii may wax ñu ko bind ca lawxul mahfuus te dara du ci soppeeku kullun fi kitaabin mu waxaat ne bind nañ ci asamaan ne nit ñëpp danañ jot ci seen wërsëg wa fi samaai risqukum wa ma tuwaadun mu àgg ci di ko waat fa wa rabbi samaai wal ard innahu la xaqun misla ma annakum tantiqun war ngaa gis ne it wërsëg mooy lépp loo jariñoo rek comme ni ñu ko waxee bu dee ci wàllu fiq fiq moom li muy gëstu ñaar rek la ñaar mooy wërsëg bi nga yor day xool bu fekkente ne li ngay jëfandikoo am nga ci ndigal muy la lii lu lew bu fekkee li ngay jëfandikoo amoo ci ndigal mu ne la lii araam la ni ki noonu it fiq li muy lijjanti mooy lii nga yor lépp loo xam ne mën nga koo jaamoo yàlla boo ci jaamoo yàlla mooy la kon sa jaam yàlla gi nangu nañ ko ndax yàlla ku teey la du nangu lu may lu teey lépp loo jaamoo yàlla te teeyut mooy la boo ci jaamoo yàlla duñ ko nangu kon fiq wàllu boobu lay lijjanti kon jeexit ci wàllu fiq foofu lay jëm bu dee ci wàllu tasawuf na ak ci wàllu tarbiya boo gëmee ne wërsëg ñii la doxe dana la jural ay jeexit yu bari sa dund dana soppi ndax da nga ci yàlla wakkilu bu wér da ko bàyyi xel bu baax da nga ko wóolu lool it ndax ku gëm ne yàlla rek mooy wërsëgal wërsëg doo ko sàkkoo ci kenn ku du suñu borom kon yëg ne wërsëg fenn lay bàyyi ko dana tax nga bàyyee sa mbir yépp suñu borom dana tax lu yàlla dogal ci yow it nga nangu ko moo xam muy dogalub yiw wala dogalub ay moo xam muy jàmm moo xam muy ay moo xam muy lu neex moo xam muy lu naqari ku gëm lii it da gëm ne suñ borom nu ko neex lay wërsëgalee ab jaamam am na ñoo xam ne seen wërsëg dafa yaatu am na ñoo xam ne seen wërsëg dafa gàtt am na ñoo ne daf leen di jox lu bari am na ñoo xam ne daf leen di xañ am na ñoo xam ne daf leen di jox lu tuuti kon kiy jariñ ak kiy lore ca dëgg-dëgg kiy joxe ak kiy xañe ca dëgg-dëgg mooy suñu borom moo tax suñ Tuubaa di wax naan man danna gayra allahi yugni aw yadur fa daaka fi daarayni suu kaddin wa dur annaf addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani jugewut ci ku weex jugewut ci ku ñuul faneen mu ne addurru wa nafu min aljabbaari ci yàlla ñëpp doole ñëpp moo mën a jariñ moo mën a lore laysa min alfujjaari wal abraari lor ak njariñ mëntu jóge ci ku jubut ak ku jub faneen mu wax ne addurru wa nafu min alwahaabi kii maye te am lépp ci moom rek la njariñ ak lor di jóge waaye mun a jóge ci say noon yu la bañ mënut a jóge ci say sopp yu la bëgg laysa min al aadaa'i wala bi kon ko xam ne yàlla rek mooy jariñ mooy lore du yaakaar jariñ wala lor ci kenn ku dul suñu borom boo xamee ne wërsëg nii la demee dana tax nga doylu dana tax nga mën a muñ dana tax nga rafet njort suñu borom ndax ku yëg ne wërsëg yëpp ci loxo yàlla la la nekk tey lañ ca am kenn mënula la koo xañ dana tax nga wool suñu borom dana tax it doo bëggee dana tax doo tiit dana tax doo fér-féri dana tax doo xér ndax dangay xam ne lépp loo war a jot da ci jot lii nag dana la indil dund gu neex dana la indil xel mu dal boo demee ci masaalik lu bare bari suñ tubaab wax na ko ci nee na di topp ci gannaaw nit di ko maral ay tànkam ak di ragal nit wala di xemmeem lam yor ak di yittewoo sa wërsëg wala nga koy jàmmal nit loolu lépp xamal ne ñoom mënuluñ la daal dara ndax mënuñ laa jox la yàlla joxut ndax suñ borom fendal na xel imaam nga ci lépp lépp lu war a am suñ borom bind na ko wa faraxal mawla min arbain ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin qul ajal suñ borom kañ la nit ki war a faatu noppi na ca nam war a mel ci jukko noppi na ca la war a am ci wërsëg noppi na ca nam koy nam nam na bin bindiin wa war a mel loolu yëpp noppi na ca suñ tubaa teg ci ci misaal yi ne képp ku kuy wut nag lu yàlla dogalut day sonal boppam rek waaye du ci jot mukk bokk na ci moo tax ñoom dañ daan wax ne bokk na ci teggin yi war a yaar ci sa diggante ak sa boroom mooy doo bëgge doo ragal kudut suñu borom doo jàmbat nit moo tax bi muy bi muy lim ni biir ci masaalik wax na ne wa minhu aydan iltifaatun bi tamaa wal xawfi wa shakwa li xalqin in waqa kon bul geestu nit di ko wan kanam wala di ko wan ginnaaw waaye na ngay dëgmal sa borom lii it ku ko xam dana tax sa wërsëg da nga jiital wërsëgu xam-xam ak xam suñ borom ci wërsëgu ci wërsëgu bitti te mooy wërsëgu yaram rek ma tàmbalee tënk ndax waxtu mi ngi dem waaye dana tax it ngay sant sa borom dana tax ngay sàmm dana tax nga sax ci njub ci di ko wax ak di ko def ndax saa yoo xamee ni rek liggéey bi ngay liggéey wala yëngu yi ngay yëngu ay sabab la rek waaye kii dogal dëgg-dëgg kii mayee dëgg-dëgg mooy suñu borom saa yoo xamee loolu dana tax lu la yàlla jox danga ci sàmmante ak àqam lu la yàlla jox danga ko dugal fam la ko dugal loolu alal ji la yàlla jox da ko dépensé fam la ko dépensé la wér gi la yàlla jox da nga ko jëfandikoo ci jaamu yàlla ji mu bëgg nga jëfandikoo ko ci loolu moo tax suñ tubaa doon wax naan bokk na ci àq yi wërsëg nit lu ko yàlla jox ci wërsëg rek mu jaamoo yàlla ca nam ko sante ca wërsëg woowee nam ko sant mu jaamoo ko ca ca wërsëg woowee daf daan wax ne fa in takun aakila rizqallaahi wa anta fi kulli zamanin walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilum niiraan bu la yàlla joxee wërsëg nga koy lekk ba noppi di fo dëkkee fo te tuuboo farlu jàppale sawara man lay xaar di wax naan laa taakulanna abadan risqal ilaa fii kulli xiinin summa taabudi siwa sañoo lekk wërsëg yàlla ba nopp di jaamu keneen ku dul moom te yàlla lu mu la jox rek am na lu mu la sant ngi jëfandikoo ca nga jëfandikoo ko ca ca loolee bu la joxee alal am na ay bunt yu mu la ubbil ne foofu nga koy dépensé bu la joxee wér-gu-yaram am na ay jaamu yàlla yu mu la ubbil ne la foofu nga koy nga koy dépensé bu la joxee daraja am na nu la wax ne noonu nga ko jëfandikoo saa yoo fa bàyyee lool nag def la neen mooy yaa ngi jaamu keneen ku du suñ borom kon bu la yàlla joxee wërsëg na nga ko na ko ci jaamu comme ni ngay soxlaa mu dimbalee la wala aksiril amala lillahi al ahad miqdaara faqrika li awnihi abad am na faneen fu ñu waxe naan yàlla àq ji maam ci xéewal yi ñu jox mooy ñu jaamu ko wéetal ko waaye it ñu booleel ñi xéewal gi jaar ci seen loxo ñu xam ne ñooñu daa mënta ñàkk ci ñoom rek wa an tara kullal wasaiti bi qahri dil wara yàllaa ko jaar ci seen loxo mënuñ ci dara ki nga xëy mu may la alal baa mu lay jox xam-xam baa mu lay jàngal lam la jox yàlla da ko jaarale ci ay loxoom rek waaye ala kulli xaal bu jaarutoon ci moom it yàlla dana ko jaarale ci leneen ba ba mu egg say loxo ndax sa wërsëg la moo tax moo tax la nga war a jëfandikoo mooy war ngaa sant yàlla waaye war ngaa sant ki mu ko jaarale ci ay loxoom loolu boo ko defee da nga da nga boole diggante xaqiqa ak charia bu ñu xamee ne wërsëg nii la demee dana tax suñ diggante dana mën a ratax danañ mën a bëggante danañ mën a mbokkoo ndax suñ tubaa day wax naan wax ku gëm ne wërsëg yépp ci loxo yàlla rek la nekk ku gëm lool di ko dund ku xam ne nit lu mu am yàlla rek moo ko jox kooku du iñaane kenn dara ndax day xam ne lu nit am rek yàlla kooku nit lu nit am dana ko yéene dana ko bëggal lu mu bëggal boppam it dana ko bëggal moroomam ndax day xam ne bu ko bëggalut it dana ci jot waaye boo ko bëggalee danga nga am tiyaabay bëggal gi nga ko ko bëggal kon nit boo gëmee ne wërsëg yëpp ci loxo suñu borom lay nekk te kenn ku ci ne dana jot ci wërsëgam dana la indil ak doylu waaye dana la indil ak cofeel dana tax ka ëmbal nga ëmbal ñëpp cofeel nga ëmbal ñëpp ak mbokkoo suñu sëriñ bi loolu la bëggoon ci taalibe yëpp moo tax mu daan wax taxaababu fillahi dil jalaali bi laa tanazuin wala idlaali na ngeen di bëggante rek te yàlla tax bëggante mooy ngëm yàlla mooy ñi yàlla ñi gëm yàlla nga bëggal leen mbégte bëggal leen kóolute waaye bu dee iñaanante moom ci ak texee di rek la lay la lay yóbbu kon ci gàttal loolu mooy wërsëg euh, jeex yooyu la am lan mooy barke barke ci gàttal buñ ko waxee ci arab dafay firi luy sax di continuer waaye dana firi yiw wu bari dana firi dund gu boo demee ci alxuraan baatu barke ñëw na ci fanweeri yoon ak ñeent ñëw na ci lu tolloog fanweeri aaya ak ñaar ñëw na ci ay wax yu bari léeg suñ suñu borom baaraka lay jëfandikoo léeg mu jëfandikoo baarak naa léeg-léeg mu ne buurika léeg-léeg mu ne tabaaraka léeg mu ne barakaat léeg-léeg mu ne barakaatu léeg mu ne mubaarak léeg-léeg mu ne mubaaraka waaye bu ñu setantalee aaya yooyu yépp dañuy gis ne benn barke dafay wane yiw bu sax wuy continuer wala muy wane yiw wu bari waaw xaw wa awrasna qawma allasina kaanu yustadafuuna mashaariqa al ardi wa magharibaha allati naa fiha penku bi penku suuf si ak soow bi nga xam ne dañ koo barkeel dañ koo barkeel mooy dañoo fexe ba aw yiw dafaa bari lu baax dafaa bari ñi dëkk ci penku ay ñi ak ñi dëkk ci sow ñëpp fu ñu toll dañuy yëg aw yiw woo xam ne day sax ci ñoom inna awwala baytin wudi'a linnaasi lallasi bi mu baarakan mooy màkka suñ borom da ko def mu nekk barab bu barkeel boo xam ne loo fi def dañ koy ful kon loolu mooy barke barke nag kenn du ko askanale ku dul yàlla yàlla mooy kii sax yàlla mooy ki barale lu baax yàlla mooy ki lay yokkal lu baax moo tax melokaan yooyu yëpp moom rek moo ko yelloo suñu borom rek mooy barkeel bu ñu waxee barke nag ci ni ko sëñ Tuubaa jàngale mooy lan sëriñ bi dafay wax ne barke mooy yiwu sax loo xam ne mbir moo xam ne foo toll danga fay danga fay gis yiw woo xam ne dafaa sax wala nga ne mooy yiw bu bari ba noppi di màgg di yokk loo xam ne day yokk di màgg di continuer walla nga ne mooy sax loo xam ne dafa boole ñaar yépp loo xam ne day sax ba noppi di di bari di màgg di continuer kon barke bu ci gàttal mooy mbóotum suñu borom la moo dañ koy seetlu ci ay mbir yokkuteeg maanaa la ak yokkute la koo xam ne deesu ko làmbu daj ko deesu ko xool gis ko waaye nag foo dem rek danga fa fekk ay màndarga looy wan ne lii lu barkeel la barke nag bu xasee di ñëw amut fu mu yem amut fu mu day day yokk rek lu yàlla di defal nit la di ko def ci ay barab yàlla barkeel na alxuraan barkeel na kaaba gi am na ay jamono yu mu barkeel comme weeru koor wi ñu nekk am na ay barab yu mu barkeel bokk na ci euh, jamono yu mu barkeel mooy laylatul xadar bokk na ci barab yu mu barkeel mooy li wër al masjidul aqsa suufu shaam ñëw na ci alxuraan mu tolloog euh, juróomi yoon yoo xam ne dafay wan ne suuf sa suuf su barkeel la mën nañoo jàpp ne fii ci suuf su Tuubaa si suuf su barkeel la masalan kon barke mbir la moo xam ne day am ci ay jamono day am ci ay barab day am ci ay jëmm day am ci mbiri diine day am ci mbiri àdduna léeg nga yàlla defal la ci sa mbirum àdduna loo xam ne fuñ ñu toll dañ cay yëg barke waa dañ cay yëg barke mën naa nekk ci mbir yoo xam ne dañ koy laam mu daj ko mën naa nekk ci mbir yoo xam ne mbiri maanaa la lu mel ne xam-xam yàlla mën na ko barkeel kon barke boo ko bëggee xam danga naan mooy mbir la moo xam ne saa yu duggee ci lu néew da koy baril saa yu duggee bari daf koy sakkanal saa yu génnee ci mbir saa yu génnee ci mbir mu bari da gis ne loolu day néew waaye saa yu génnee ci mbir mu néew daf koy jeexal tàkk loolu mooy barke moo tax Sëñ Tuubaa wax naa naan barke bu duggee ci lu néew da koy yokk bu génnee ci lu bari da koy néewal loolu wax na ko ay yooni yoon ci ay waxin yu baree bari kon nit li nga yor saa yu la ci yàlla defalee barke day tax nga mën cee jëfandikoo say soxla say yitte say aajo ci effort bu gën a néew ci coono bu gën a néew waaye nag mu jural la ay résultat ay njariñ yu gën a bari barke foofu lay feeñ maanaam mbir mi yàlla def barke saa yu ne da koy mën a jëfandikoo ci diir bu gàtt ci anam gu gàtt waaye mën lay jural njariñ wu dul jeex kon barke foofu lañuy ñu xamee ne am na relation ak wërsëg wërsëg saa yoo ciy seetlu rek mel ne luy gën a yokk day mel ne luy gën a sax xamal ne wërsëg woowu am na barke wërsëg bi saa yooyu yéeg ne yemut ci yow rek waaye lépp lu la wër ak képp ku dàq ci yow ak képp ku ci mën a jariñu mi ngi ciy jariñu jàppal ne wërsëg boobu am na barke kon barke mbir la moo xam ne fu mu nekk rek day feeñ barke du luy nëbbu kenn mënu koo nëbbu moom day mel ne keel rek loo ko suul suul day feeñ nit saa yoo xamee ne li mu yor am na barke day feeñ ci fu mu toog barke bi dafay ci dafay feeñ fu mu jaar barke bi dafay feeñ lu mu yor barke ba da feeñ barke it fuñ ko dindi loola it da feeñ moo tax suñu Tuubaa daan wax naan barke mook sawara ñoo yam sawara day tàkk day tàkk boo ci jëlee dara masalan boo fekkoon ay xal nga jël ci ñaari xal boo ci jëlee loo ci jël lum néew néew daf lay amal njariñ nee na wërsëg nag moom jant yam jant day leeral adduna bi yépp waaye mënoo cee lakk dara mënoo ci togg dara noo ci taal dal kon foofu wane na relation bi wërsëg am ak barke barke mbir la moo xam ne day mel ne sawara barke moom day taale dala daf la lay day day taal borom ba noppi ku ko jege yëpp daf lay taalaale moom dafa am taabaxul ihraq bu dee wërsëg nag jant la moom mën naa leeral eh, kërëng kërëng di mën naa bari coow li naa bari waaye nag ki ko yor rek njariñ la ca moom lay yem kon mën ngaa jàpp ne barke énergie la wala boog essence la wala crédit la boo xam ne saa yu duggee ci wërsëg njariñ la day gën a yaatu kenn ku ci ne danga cee gis sa bopp waaye saa yu génnee ci wërsëg day mujj mel ne jant rek nga xam ne mën nay leeral li ci wetam nit ki fu mu toog nga xam ne kii borom wërsëg la nga xam ne borom alal la nga xam ne boroomi yëf la waaye nag lim yor kenn mënu koo jariñoo wala njariñ la day tënku ñii rek ñoo koy mën a jariñoo wala moom rek sax moo koy mën a jariñoo lii moo tax ngeen di gis borom alal ju ñuy coow te deful dara ñu naan borom barke la fekk borom alal la borom wërsëg la fii yor ci boppam rek la yar taalut kenn dimbalewut kenn yorut kenn gàdduwut kenn kooku yor du barke waaye wërsëg la lam yor du barke waaye wërsëg la Sëñ dafay wax ne benn diram benn dërëm

wa alfun laysa fihi albaraka yasiru adaman mahdan kon wërsëg wërsëg woo bëgg a xayma alal joo bëgg a xayma xoola rek ndax ma ngay yokk ndax ma ngay amal njariñ nit ñi saa yoo xam ne njariñ li mi ngi yaatu rek jàpp ne alal ji am na barke lii moo tax sufiyanke yi nag daan gëstu ku bëgg a am barke fooy jaar nit boo bëggee nit ku bëgg a am barke fan lay jaar loolu wax nañ ki lu baree bari ci ay waxe ñu wute boo demee masalan ci euh, silkul jawaahir bi suñ Tuubaa bind da nga gis mu tuddal loo ay sabab yu bari yoo xam ne nit mën na ci wute barke tudd na ci ragal yàlla ragal yàlla dana maye barke bari loolu def istixfaar dana maye barki koo xam ne saa yu xëyee di def istixfaar subaak ngoon dana maye barke taqwaakum njàpp dana maye barki loolu mu ngi silkul jawaahir euh, di julli julli mbooloo julli juróom yi nga koy fekkee ci mbooloo dana maye barke fonk julli yoor yoor dana maye barke fonk saraxe dana maye barke ñeme njaboot dana maye barke rawatina nag ci bis yi ngëneel yi lu mel ne bisu tamxarit wala yu mel noonu boo toogee ci jotaay nit ñëw nga yaatal ko dana maye barke di jàng yenn saar yi lu mel ne faatiha ak lixlaas ak ayatul kursi ak suratul qaari'a suratul qadr suratul waaqia ak yar ak jur dana ma yegg barke yar ak jur xëy na moo tax mag ñi da nga naan gis seen kër yi saa yoo demee nag fu fekk gétt bari loo sàbbaal suñu borom dana maye barke am doom tudde ko muhammad ba ahmad dana maye barke yëpp mi ngi ci euh, sirkul jewaahir waaye am na lu ko gën loo xam ne da nga koy fekk ci yeneen bindam yi muy ay mbir yoo xam ne day maye barke bokk na ca ragal yàlla ak jël say mbir yëpp bàyyee ko suñu borom taqwallahi azza wa jal wa xusnu tawakkuli alayhi sëriñ bi daf daan wax ne barke mu ngi juddoo ci ragal yàlla ak sax ci ay teggin daf daan wax ne ku ragal yàlla taqoo ci teggin suñ borom dana la defal barke ci saahir wala ci baatin wala sax ci saahir ak baatin kon ragal yàlla dana maye barke loolu suñ borom moo ko wax ci alquran moo ne woon wala wan naa ahlal qura amanu la fataxna alayhim barakatin min asamaai wal ard nit ñi buñ ragalee yàlla rek suñ borom da leen leen ubbil bunti barke ci asamaan ak ci suuf barkeb asamaan nag mooy taw barkeb suuf mooy gàncax gu bari mooy meññam mu bari jur gu bari sécurité bu mat sëkk loolu mooy barkeb suuf ndax dañuy wax ne àdduna bi ni ko yàlla bindee dafay mel ne asamaan day taxaw taxawaayu bàyyi suuf taxaw taxawaayu ndey léegi nag la cay juddoo ci ay njariñ loolu mooy barke bi ndax gis ngeen asamaan mooy taw mooy suuxat kon mooy taxaw taxawaayu bàyyi kiy jur meññat yi ak di di dundal jur gi mooy suuf si kon mooy taxaw taxawaayu ndey suñ borom nee na woon ku ma ragal ma génne la ci ku ma ragal mooy kuy sax ci samay ndigal bàyyi samay tere loo bëgg ma defal la ko wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasb Sëñ Tuubaa bi ñuy firi la aaya bii dafa wax ne ku ragal yàlla yàlla génne la ci daan ne mi ngi mel ni ku xiif rek mi ngi mel ni ku xiifoon di dox ba gis ñam wu neex man koo lek mu man koo lek waaye ragal yàlla gi tax ba tax mu bàyyi fa ñam ma xam na ñi yëfi jàmbur la tax mu bàyyi ko fa waaye nee nag bi muy ñibbi di dem ci yoon wi ba mu yàgg la taseeg kuy jaay waneen ñam mu waxaaleeg moom bi mu demee ba koy jënd di ko jox njëg gi jaaykat ba ne ko déedéet jëlal jox naa la ko ci xol bu sedd guy kon gis nga ne ragal yàlla gam ragaloon yàlla ba tax mu bàyyi ñam yu jëlu ko ñamu jàmbur ko jëlu ko moo tax bi mu ñëwee ba bëgg a jënd ci koo xam ne day jaay ba ñëwee mu may loolu bari na ay exemple yu ñu dal lool léeg-léeg jamono naqari ci yow ba nga bëgg saalis ba nga bëgg a wax wax waxuut wala nga jëf bëgg a jëf jëfiin woo xam ne jëfuut waaye saragal yàlla ak sa conscience yedd la ba tax nga dëkk waaye da ngay daal di gis ne suñu borom daf lay ubbil beneen bunt boo xam ne mooy gën fuuf bunt bi nga xam ne ca nga naroon a jaar suñ Tuubaa daan ne wa yarzuquhu min haysu laa yahtasib kon mooy loolu mooy jaaykat bi mu mu jox ko loolu maxaraj bi li la ci génne nag mooy ragal yàlla gi beneen barab mi ngi doon firi li li bi wax ne ittaqillaahi xaysu ittaqillaahi xaysu kunt mu ne loolu ni koy firee mooy da dellu ci alquran alquran moo waxoon ne man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja dane yàllaa ngi fépp barab boo nekk xam-xamu yàlla àgg na fa ak nguuram àgg na fa kàttanam léegi ragal ko rek saxal ci def ay ndigal boo ko defee lépp loo bëgg danga ko am saxaat ci di bàyyi ay tere boo koy def lépp loo ragal dana la daw lépp loo ragal dana la daw dana la ko fegal daal ne wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan mooy kii daa gis alali jàmbur ci barab bu wéet boo xam ne mën na koo jël te yàlla rek a koy xam kenn du ko xam ku dul yàlla waaye mu bàyyi ko fa ne ginnaaw yi fi jàmbur la duma ko jël naa fi bàyyi te yàlla tax wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib mooy mu bi mu fi bàyyee alal jooju dem di dox di dox di dox ba gis ba taseeg waa yu bari alal waaye ku nay koo xam ne du leble buy jaayanteeg yow ak di jëndanteeg yow eh, yadan bi yadin rek lay nekk da koy jox mu jox la waaye nee na ba nga taseeg moom mu jël alal ju bari sott la ko ne la jëlal ma jox la ko te yàlla tax gis ne kii nga xam ne daawut joxe day mel ne kon yàllaa ko tàggat mu jox la la tax mu jox la mooy ragal yàlla gi nga ragaloon yàlla fekkoon alali jàmbur bàyyi ko fa te yàlla tax daan ne kon xotti baax ci ragal yàlla rek lañ koy mën a amee suñ tubaa ne xotti baax dëgg-dëgg mooy alal jam fa bàyyi te mënoon koo jël waaye xotti baax bi mooy alal ju bari jii nga xam ne moom la ko yàlla dabaatale ñu ko noonu wakkiilu it dana indi wërsëg suñ tubaa wax na ci lu bare bari mata takun muttakilan alal ilaah takun qawiyan wa yaxafka kullu laa daan wax ne saa yoo toppee ndigal bàyyi tere suñu borom daan la teral saa yoo doyloo yàlla yàlla daan la jox di nga bëgg lépp wastaxni bil mawla wala tamallaqa lil faqri aw lil juuxi taxwil irtiqa wa in tawakkalta ala mawlaaka yarzuq yarzuqka baxtatan fa xaawil daaka saa yoo jëlee sa mbir yépp teg ko ci loxol yàlla daan la jox wërsëg kon na na nga na nga taqoo ak ak wakiilu isaa fa watta amran lil wara fa sa tulaaqi nadaman wa say mbir nag saa ko ajoo ci eh, nit ñi dañ lay lor rek ndax ñoom mënuñoo jariñ seen bopp sax bay jariñ kenn ñaareel bi ci li ñuy sàkkoo barke mooy saraxe ak ci di dépenser sa alal te yàlla tax suñ borom moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raasiqin alal jii ngeen yor lu ngeen ci dépensé te yàlla tax suñ borom dana leen ko wutalal wutal gi nag mën naa nekk ci àdduna mën naa nekk ci àlaxira yonent bi sallallahu alayhi ci benn xadis boo xam ne Abu Hurayra nettali na ko dafay wax ne nit saa yu xëyee ñaari malaayika danañ ko dar nit saa yu xëyee ñaari malaayika danañ ko dar wàcc jóge ca kaw asamaan kenn ci naan ko joxeel ci li nga yor ma ñaanal la yàlla jox la lu du jeex allahumma aati munfiqan xalafan waaye boo joxewut ci li nga yor ma ñaanal la suñu borom sànq li nga yor wa aati mumsikan talafan am na beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan suñ borom dafay wax ne anfiq unfiq alayk joxe li nga yor ma joxaat la leneen moo tax Sëriñ Tuubaa di wax naan képp ku ñëw ci yow te bëgg dara loo mën ci dimbali ko dimbali ko te yàlla tax bu fekkee am nga ko waaye bul denc alal ngir ëllëg mukk ndax suñ borom moo la joxoon alal jooju te saa yoo baree loo koy dépensé rek mu jox la lu ko wuutu wa kullu man waafaaka al ibtidaa'i fasbub alayhi mataral ataa'i in kunta daa ginan wala taxtakir maalan ila ila gadin li xawfi darar bul denc alal mukk di ko denc ëllëg ngir ragal ñàkk li annahu subhanahu wa taala huwa allasi ataaka daaka almaala fa xaytuma aksarta fihi talafa li wajhihi ataaka jallal xalafa lii nag boo koy bàyyi xel day tax nga wóolu suñu borom day tax nga rafet njort ci moom day tax nga doylu day taxit lim la jox wërsëgalal la ko danga koy dépensé ci aw yoonam day tax sa ngëm-ngëm day gën a day gën a fés ci sa diggante ak sa borom day gën a dëgg dana taxit suñu borom musal la ci seytaane ndax as seytaanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim kon muñ gi ngay muñ di joxe sa alal yàlla tax loolu daraja la ju kawe juy wane ak ngëm yàlla waaye jula ju la mën a indil barke la dafa yàgg ci ne sax suñ tubaa am na ci barab boo xam ne day wax naan wala yunfiqu mimma razaqahu llahu illa muhsin kii dépensé alalam te yàlla tax kooku day àgg ci dara darajatul ihsaan maanaam ak sellalam ak relation moom digganteem ak suñu borom day àgg fu kawe am na benn xadis bis yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw ci bilaal ne loo yor nii mu ne ko ah lii de yow laa ko fii denc la yaag sa gan yi yónni tamit ne ko déedéet déedéet mukk anfiq yaa bilaal na lépp na lépp joxe lépp wala taxsha min dil arshi iqlaalan bu yàlla ñàkku dara loo joxe rek mu jox la la ko moo tax ci histoire avant sax avant l'islam sax ba léegi da ngay seetlu saa yu ne ñi dàq joxe ñooy ëpp barke ñooy ëpp ay am am imaam Qurtubi dafay wax ne di téye alal ak di nay ak di ŋàppaat ñaaw njort la day mel ne ku koy def yaa ngi ñaaw njort suñ borom ndax suñ borom moo bind aadama bindu suuf si toog tàggatal ko doomu aadama saa yu joxe rek saa yu dépensé ci li ñu wax rek suñ borom di ko gën a tëbb ay mayam suñ tubaa dafa daan wax ne nit bu ko yàlla mayee wërsëg wu bari mu jaamu ci yàlla dimbale ci keneen na xam ne wërsëg wi fii ribxuhu aynul baraka nga xam ne wërsëg wërsëgamu fii bénéfice ba cay juddoo mooy jëmmi barke daan ne barke bu duggee ci lu tuuti da koy bari bu duggee ci lu bari daf koy sakkanal daan ne loolu yaa ngi koy am fekk ci alquran fa yàlla di waxe ne ka sajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi samaa tuuti ukulaha kulla xiinin bi ismi rabbi rabbiha daan ne bénéfice bi mooy kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba daan ne bu la nga nga nga def ci laneen lu bokkut ak li mu bëgg wala nga dem euh, di ko ko moyee xamal ni kii nay gii mu nay dëgg-dëgg mooy ak miskin mooy ak torox daane loolu yàgg fekk ci alxuraan fa suñu borom di waxee naan ka saraabin bi qiatin yaxsibuhu damaanu maan xata isa jaahu lam yajidhu shay'a naan ñàkk gi ñàkk am bénéfice yaa ngi ko fekk ca fa yàlla di wax naan fa sa yunfiquunaha summa takuuna alayhim xasra am na ñoo xam ne dañuy dañuy dépensé ba pare jëlee ca toroxtaange jëlee ca perte perte bokk na ci li ñuy wutee wërsëg it mooy ay teggin sëñ bi wax na ko ci barab yu bari damay tënk rek fi mu gën a leere mooy dafa doon wax ne barke bu duggee ci lu néew daf koy bari buñ ko génnee ci lu bari dafay néew daal ni teggin bu duggee ci lu ñaaw da koy rafetal da koy taaral buñ ko génnee ci lu rafet da koy ñaawal teg ci ne barke am néeg la boo xam ne boo ko bëggee kër la boo xam ne boo ci bëggee du dugg buntu ba mooy ay teggin kon boo amee ay teggin rek mën nga séntu ne da am barke daal ne nag kër na la am néeg mënoo caa duggu te jaaroo ca buntu ba ndax suñ borom moo ne watul buyuuta min abwaabiha suñ tubaa waxaat ne adduna ñaar rek a fi teg teggin ak barke daal ne booy wut na nga njëkk a wut ay teggin ndax barke mënoo koo am tax mooy teggin kon ay teggin akub yar defar sa jikko bokk na ci lay may barke daana wax ne comme niñ ko waxee woon léegi barke day juddoo ci ragal yàlla ak i teggin bokk na ci liy indi barke it mooy xidma xidma di liggéeyal nit ñi te yàlla tax rawatina liggéeyal sa sëriñ loolu nag suñu sëriñ bi moo ko waxal boppam ci benn bayit woo xam ne moo ko wax firi ko bayit bi mooy lan barakatun bi nia barakatun bi nay li xayri nicma tumsil muridina ana al xidma sëñ bi daal loolu boo ko bëggee dégg dama la koy tënkal baraka buñ ko doon tënk nee na boo jëlee baa gi mooy bayul fuduli zahiran wa batinan mooy da ngay bàyyi ay caaxaan da ngay jaay ay caaxaan ci zahir ak baatin ñu ne ko jaay ay caaxaan ci saahir mooy lan mooy mu ne da ngay fexe ba say cër du yëngu ci lu amul njariñ nii la ñuy sàkkoo barke ni ñuy lay wax da ngay bàyyi ay caaxaan ci saahir mooy da ngay fexe ba say cër du yëngu ci njariñ ni ngay jaayee eh, ni ngay jaayee ay caaxaan nag ci baatin mooy da ngay fexe ba doo doo xalaat lu baaxut nii la ñuy wute doo xalaat lu baaxut loolu mooy bàyyi raaje mu ne dangay ngay yëkkati sa yitte da jawar jaawaat rek ci sa borom bañ a gestu lenn lu dul yàlla loolu mooy raaje kaaf gi mooy baraka kaaf gi mooy fu lu baax nekk da koy wuti di ko yéene di ko wax di ko jëf kasbul xuyuuri niyatan wa qawlan wa fi'lan taage barakatu taage mooy saxoog tuub moo xam li nga xam xam ni def nga ko ci ay bàkkaar nga koy tuub li nga xamul nga xam ne yàlla xam na ko te booy tuubit nga fas ci sa xol ne suñ borom boo ko jëfaloon lu toll ne asamaan ak suufit di indi defoo asaka yi lim la xéewale ndax maa qadarullah xaqa qadrihi mu des haagi mu ne haagi mooy hadiya ñemee joxe addiya nag ku bëgg barke da ngay ñemee joxe ku bëgg barke da ngay ñemee ñuqi sëñ bi daal ci addiya ci la ñuy defaroo te defaru moo lay dugal àjjana sëñ tubaa teg ci ne wa fuhima min haasal maana ci lii la ñu xame barke kenn du ko able wërsëg moom mënees na ko able alal mënees na ko able waaye barke kenn du ko able al barakatu laa tuuta bil ihaara wala bil hiba barke kenn du ko maye wala tunaalu bi sariqa barkeb jàmbur kenn du ju dund mënoo koo sàcc innama tunaalu bi saman moom day jaay njëg moo ko fi jële njëg gi nag mooy lan mooy yii ñu la wax wamtisaalu murid amra shayqihi bi mulazamatihi hadihi al ashiyaa mooy murid bi saa yu topp ab sëriñam di saxoo juróom yii ñu la wax nee na kon juróom yii mooy coonab xidma bi barakatun bi nay ni xayri ni ama tunsil muridina ana al xidma saa yoo amee barke coono ba nga daan daj da koy fàtte coono bi nag mooy yii mu la tëralal nii yii nga xam ne moom nga war a def daane coono bi boo ko fàttee bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqim xaalidina fiha abada ci gàttal loolu mooy barke sëriñ bi nag yàlla ma na ko lool mayet na ko barke lool booy dem ci minanul baaxil xadim ba Basiiru bu lay nettali ni sëñ bi daan yare nee na daf daan def comme daan yar dañu seetlu ci moom barke boobu ndax xidma bi mu daan xidma bi mu laan bi leen daan yare moo daan tax nee na moo tax sëñ bi ñu bari jari nañ ci jaruñu nañ ci ñoom jari nañ ci moom ñi jariñu ci moom kenn mënu ko takk danga daa gis koo xam ne bu ñëwee bu ko yaree ba mu dellu ci ak njabootam dellu ci fameem dellu ci dëkkam ñu bari dañuy mën a jariñu ci moom kenn ku ci ne boo ñëwee lu toll ne la nga tànq ci sëñ bi rek lu toll noonu ngay jariñoo sëñ Basiiru ne sëñ bi mosuñoo seetlu kum seexal mu dellu ci ay mu dellu ci ay mbokkam lu may gannaaw bu ñu jaxasoo moom dañoo gis ne ni muy doxale léegi ak comportement bi mu yor ak ni mu mokkee ak ni mu dëggoo daal ak ni muy saxee rek ci lu ko amal njariñ loo xam ne daf leen di wat ne kii fa mu jugee daraa nga fa kii fa mu jugee ka ko yar ku am barke la nee na loolu taxoon na sax ba ñu baax ñépp daan njëkkante di ñëw ci sëriñ bi ngir tànk ci barkeem boobu moo tax délégation yi mu jot bari lool ay boroomi xam-xam di ñëw ay sëriñ daara di ñëw ay jàngalekat di ñëw da nga daan gis sax ñoo xam ne ay ay kilifa yi diine lañ woon wala kilifa yi àdduna di ñëw waaye ku ñëw boo ñëwee da ngay tànq da ngay tànq ba ba la yàlla soob nga jël ko ci moom comme ko amoon barke la alal ci la ñuy mujjee mooy lan alal bu ko waxee mooy lépp lu nit di denc euh, bu njëkk arab yi dañ ko daan tuddee gileem bu ñu amee lañ naan lii mooy sama ndax ñoom loolu la ñu la ñuy yor waaye ci charia bari na ay définition yi ñëw ay xamle waaye ci gàttal jàppal ñeent ñeent yii ma lay waaj wax mënut a ci alal boo bu bu amul rek ci lislaam duñ ko tuddee alal bi ñu njëkk mooy al milkiya lépp loo xam ne mën nga koo moom mën koo moomal kaneen alal la waaye loo xam ne mënoo koo moom mënoo koo moomal kaneen kenn du ko tuddee alal ci lislaam benn nga ñaareel bi loo xam ne lislaam may na la nga jariñoo ko alal la lépp loo xam ne mënoo koo jariñoo ci masabu imam malik kenn du ko tuddee alal kon mën a moom jariñoo loolu la ñuy wax alal loo xam ne kenn mënu koo jariñoo lu mel ni medd du alal xëy na nag boo ko lekk kon mën naa dugg mën naa nekk wërsëg waaye du alal ñam wuñ alal boo ko lekkoon nag bu la gaañut mën naa nekk sa wërsëg loo xam ne baaxoo wuñ koo jariñoo du alal lu mel ne benn benn fekku ceeb wala yu mel noonu loolu kenn du ko tuddee alal loo xam ne boo ko jariñoo ko dafa araam lu mel ne sàngara lu mel ne wala lu mel ne ab dawkat wala lu mel ne ñedd walla lu mel ne mbaam xuux loolu ci masab bi kenn sañu koo moom moo tax kenn du ko jàppee alal kon ñaara ngoo nay luñ mën a moom nay luñ mën a jariñoo te lislaam may ñu ñu jariñoo ko ñetteel bi mooy na am xayma na am valeur loo xam ne boo ko yóbbu woon ca marché ba dana mën a am prix daañu la ci mën a fay lii jënde ko lii ci yow baa ñu mën la ko jaay baa nga mën koo jaayee lii loo xam ne ku la ko réeralal dana def damaan dana la ko garanti loolu boo amul rek kenn du ko tuddee alal ci gàttal loolu mooy alal alal nag am na am na valeur lool ci lislam ndax suñ borom tudde na ko xayr nee na lu baax la kutiba alaykum wa isa xadara ahadakum mawt in taraka xayran foofu alal la ci jublu euh, nee na mooy taarub àdduna almaal wal banuuna zinatul xayaati dunya jaamu yàlla yu baree bari suñu borom da ko tënk ci alal boo amut alal doo ko mën a def lu mel ne saraxe boo amut alal du la yomb aj boo amut alal du la yomb kon lool day wane ne alal lu am solo la booy xool alxuraan tudd na baatub alal lu mat juróom-ñett fukki yoon ak juróom kon day wane ne lu am waaye léeg-léeg da koy ŋàññi léeg mu koy tagg dañ naan fi nga koy ŋàññee nag mooy fi nga xamee ne nit da koo yor jëfandikoo ko ci ni ko yàlla sant fi mu koy foofu la koy taggee fi mu koy ŋàññee mooy fi nga xam ne nit da koy yor di ci beew baa mu koy baa mu koy sànq baa mu koy jëfandikoo fi ko borom bi santaanewut alal moomu nag dafa am nuñ ko war a dafa am nuñ ko war a yoree nuñ ko war a saytoo foofu la ñu mujjee loolu waxi sëriñ bi la suñ Tuubaa dafa wax ne alal moom benn mu yóbbale lii baa mu yóbbale lee alal benn mu wëlbati la jëme la ci yàlla baa mu wëlbati la jëme la ci kudu yàlla nee na alal ji lay jëme ci yàlla mooy alal ji nga xam ne danga koo am saraxe ci baa nga joxe ci àddiya baa nga may ci nit te yàlla tax alal jooju dalaa jëme ci yàlla baa nga jariñoo ko ci topp yàlla baa nga dépensé ko ci fu yàlla gërëm nee alal jooju alal la joo xam ne day wëlbati sa xol jëme ko ci yàlla nee alal ji nga xam ne nag day wëlbati sa xol jëme ko ci ku dul yàlla mooy alal ji nga xam ne danga caa mooy yàlla mi nga xam ne moom la ko jox maa asaa bihi saaxibuhu rabbahu razaq te moo ne yàlla de yeyowu ko yàlla mi la jox de yeyoo na ñu sant ko ci alal ji def def ko fam ko fam ko santaane woon wa raziqul amir bi an yushkara bi kon wax ji dañ ciy dégg ne alal ngànnaay la wala boog paaka la boo xam ne day am ñaari ñaw paaka ñaari boor la mën naa jariñ nit ki ci bu ko jëfandikoo bu ko utiliser bu ko joxee fonction bi baax dëgg-dëgg fi ko lislaam teg waaye mën na koo lor kon moo tax borom xam-xam yi naan alal ma la wa niqma xéewal la ci ki xam ni koy jëfandikoo waaye musiba la alkane la ci ki nga xam ne xamut ni mu koy jëfandikoo dañ naan alal dafa mel ni jaan ku xam ni ñu koy luggee boo ko yoree mën na laa amal njariñ waaye ki xamut ni ñu koy luggee xamoo fa tooke yéen jógee boo ko yoree mën na laa mën na laa lor ñoom dañuy wax ne alal am na ay intérêt yi àdduna am ay intérêt yi diine intérêt yi àdduna yi moom ñëpp xam nañ ko xam nañ ne tey loo bëgg rek alal moo ko mën def waaye entre yi diine yi ñetti façon la li ngay jariñoo ci sa bopp ci jaamu yàlla wala nga koy dimbali ko ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla mooy lu mel ne li ngay aje wala li ngay jihaate loolu lépp alal moo ko mën masalan ndog yiñ fi defar fii ci ci jumaay Tuubaa ji la nga cee participer loolu li looy looy jaamu yàlla la looy dimbalikoo ci ak jaamu yàlla li ngay dimbalikoo wala la ngay joxe azaka looy dimbalikoo la ci ak jaamu yàlla wala la ngay saraxe wala la ngay bu kanam laajte social la ngay joxe loolu looy dimbalikoo ci ak jaamu yàlla li ngay dëgërloo tamit ngir mën a am kàttan pour jaamu yàlla lu mel ne li ngay lekk li ngay naan li ngay sol la ngay denc soxna ak la mënta ñàkk set dund loolu day dugg ci jaamu yàlla loolu mooy kon li jëm ci sa bopp nga xam ne boo ko defee tiyaaba ji daf lay xaar ci daf lay xaar ci sa bàmmeel ñaareel bi mooy li ngay jëmale ci nit ñi moom ñeenti xaaj la ba ci jiitu mooy asaka ak sarax ñuy nuyuwaale bu baax suñu mbokki yi nga xam ne ñooy saytu wàll googu te teew ci jotaay bi muy waa kër asaka yi azaka ji loolu looy jëmale ci nit ñi la àq la joo xam ne suñu borom moo ko moom waaye nag mooy la moo la joxañ ab joxañ ne la joxal ma ko ñii li ngay jëmale ci mbañ gàcca muru a mbañum rus mooy li ngay gàttalee say gan li ngay joxe addee li ngay dimbalee nit loolu njariñul diine la la njariñul diine la ndax dala dana la fàggul ay xarit dana la fàggul ay mbokk dana tax nga am jukkoy tab ñetteel bi mooy li ngay fekkee sab der xëy na ki ñëw di la mu xas la la nga koy jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne li ngay fege sab der li ngay protéger sab der dañ la ciy bindal tiyaabay sarax ñeenteel bi mooy li ngay fay ku la liggéeyal ndax li ngay fay sab sofóor li ngay fay sab mbindaan li ngay fay sab surga ndax loolu boo ko defutoon da nga dépensé ci sa waxtu lu baree bari loo xam ne xaj na ci ak jaamu yàlla ak li ngay jox nit wala li ngay def ci barab te yàlla tax di ngay Euh, participer ci jàkka yi ci hôpitaux yi ci ndog yi ci yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu ay njariñ la waaye nag am na ay lool ndax dañ naan alal ki ko yor lu ci baree bari daf koy yóbbu ci ak mooy yàlla ndax lu mu bëgg rek da koy yóbbu benn ngoog ñaareelu lor bi mooy dana tax nga gën a mën a xéewu ci yu ba yu dagat yi maanaam ak noos daf lay yomb te ko ak noos yomb bu yàggee nga dugg ci yu lënt yi ndax loo baaxoo am loo tax ma am boo ko amul rek day noo ko amee rek da ngay mujj noo ko amee rek daanaka ci bul faale ci ngay dox moo ko amee rek baax na kon kon lor la ñetteel bi mooy li nga xam ne nag kenn mum cee mucc mooy alal ji lu mu gën a bari alal ji lu mu gën a bari ngay gën a di la yëf ci di la gën a yitteel waaw te loolu day tax sikru laa doo ko mënati foo toll yaa ngi yaa ngi gëstu yaa ngi gëstu noonu laay def ba mu yokk kii may liggéeyal nan laay def ba du ma war marchandise mii nan laay nan laa koy jële fii indi ko fii sa xel jours ci luy yokk alal ji ak lu koy protéger ak lu lay yokk bénéfice ak noo koy sàmme ba du ba doo ko ñàkk ci yooyu rek ngay nekk loolu daf lay indil sa diggante ak sa borom daanaka doo ko talati loolu nag boo ci tegee stress bi mu lay yokk ragal gi mu lay yokk njàqare yi mu lay indil fotol yaa ngi xalaat ndax kii iñaane na ma wala iñaanewu ma jafe-jafe yi mu lay indil yooyu yëpp ay jafe-jafe la moo tax bu ngeen demee ci tasawuf ñu naan la ñuy wax naan alkafaaf moo gën kafaaf mooy nga fexe ba am lu la doy daal waaye nag doo am xaalis trop ba mu lay indi lor yi dañuy wax naan alxaniyu shaakir moo gën alfaqiru saabir donte ak wuute am na ci ki nga xam ne dafa yàlla da koo may alal ju bari waaye moom lam soxla rek la see jël la ca des lépp da koy defaat ci bunti bunti yi yàlla digle kooku dañ naan moo gën ki nga xam ne amut di ko muñ am na ñu wax loolu am na ñu ne waaye nag bu fekkee da am alal waaye yow noos rek nga ciy def da nga ciy faj sa soxla waaye nag da nga ciy jël di ci noos doo ci soxla doo ci faj soxla si jàmboo boobaa dañ naan alfaqiru saabir moo la gën ki nga xam ne amut waaye ni ngi koy muñ moo la gën foofu loolu moo tax suñu tubaab boo demee ca masaalik mi wax naan sumal kafaafu haahuna afdalu min faqrin wa min ginan li dafi maa yain ndax boo amee boo nekkee boo nekkee ci xaalatul nga xam ne li la doy rek nga am mooy musiba yañ waxoon ci kii am alal li koy dal du ko du la mën a dal waaye ki ñàkk yi coono yi muy am yow du la dal wa saaxibul xinaa in yakun shakur yafuq si di faaqatin kaana sabuur ki ñàkk bu dee sant yàlla mooy buy jël am rek la jëles lépp mu ko dépensé ci yoonu yàlla kooku moo gën ki amut ba noppi di ko muñ yooyu yëpp nag balaa am da ngay nit balaa mën a dépensé ci alalam day day day gëm ne li ko yàlla jox dëgg koo dénk ndénkaan la loolu feeñ feeñ na ca ndénkaanib sàmm lawbe ba suñ tubaa xamal na ko ne li ñëw ci sa loxo lépp ci loxoy jàmbur la jóge nit balaa mën a dépenser alalim daa war a gëm ne it alal yi nekk ci loxoom dafa war a circuler wut a taxaw ndax li alxuraan wax li kay laa yakuna duulatan baynal aghniyaa'i minkum loolu bokk na ci li tax ñu gën a yoonal azaka ndax azaka day day tax alal ji nga yor day circuler li nga yor du yem ci benn barab rek waaye day maanaam ñi koy mën a jariñoo day mën a yaatu danañ ci mën a am ñoo xam ne dañ ci mën a taxawal ay entreprise danañ ci mën a am ñoo xam ne dañ ci mën a dund loolu mooy waral social yeeg yëpp Sëriñ Tuubaa daan wax naan dajale bu mu la tax a jug mukk daal li ngay dajale saa yu ne ñi lay say say ndono rek nga ko fi bàyyi laa taxtarir bi xutaamin anta tatrukuhu lil waarisina ka ixwaanin wa wildaan yowmal qiyaam dara du la fa mën a jariñ lu may sa jëf ji nga jiitaloon rek alal ji nga dépensé woon te yàlla tax nekk ci àdduna dajale alal rek bum la tax a jóg waaye sa alal bu ko téye mukk boo ci jëlee sa soxla ba noppi dundal ci sa sa njaboot li ci des lépp na ko na nga ko dépensé waaye daana wax naan ku la ku la diis ay yitteem boo ko mënee dimbale defal sa kemtulaay kàttan pour dimbale boo ko mënta dimbale tegtal ko wan ko yóbbu ko ci koo ko mën a dimbale daana wax naan xam-xam bu am njariñ ak joxe ak jullit waru cee tàyyi nee na ku ñëw ji la diis soxlaam boo ko mënee dimbale dimbali ko boo ko mënut na nga koy yabal ci ku ko ma ku ko mën a dimbale alal nag kon noonu lañ koy saytoo da koy fàggu ba noppi da koy joxe loolu mooy murid gi bu loolu amul rek daf ñuy indi ci ak toroxtaange daf ñuy indi ci alkale ndax gis ngeen bayit woowu mu daan wax naan moom la doon déyaaleeg boromam aadda lii jannaati adnin tajri min taxtiha al anhuru maahil xajri siñ sëñ bi nee na damaa toog ba mu yàgg ma jaaxle lool ndax damaa gis daal jékki-jékki gis ne njaboot gi alal ji bari na lool waaye nag gis naa ñu koy sànk fu ne gis naa ñuy yëkkati ay tabax yu du jeex ci jamono ay jamonoom la doon wax moom Sëñ Tuubaa gis naa matériel bu riche bu ñu gis rek jënd ba noppi di xëccoo rek di concurrence rek nee na sax àgg na ci euh, làmpu sondeel yi ñeen ñenn seen seenu mbewte àggoon na ci dañ daan jël gétt di ko ci def au lieu que ñu def ci diw waaye gétt lañ ci daan def sëñ bi nee na loolu naqari ma lool ndax gis naa ne ñi ngi am wërsëg waaye ñu ngi koy neen bi ma laajee suñu borom suñu borom ne ma yow de yaa ko def de yaa bind ma def lii ndax yaa ne aadda lii suñu borom na ma waajal na ma ma nekk àjjana sëñ bi nee na ma jaaxle ci lool waaye damaa jug ca sensé ngir far li ma bind suñ ba suñ tu suñ tubaa nee na suñ borom ne boo ko faree de boo ko faree de dootuma leen joxati dara boo ko boo boo ko boo ko boo dootuma leen jox dara boo ko bàyyee nii dama leen di dolli rek te boobaa dañuy gën a beew sëñ bi nee na ma jaaxle lool suñ borom nee na waaye suñ borom xamal ne ma ne léegi nag yaay xool nooy def waaye nee na fi ma jëlee xalima gi ak daaji rek fi may laalee baat bi mu daal di soppi ko laam gi nekk nuun maanaam nuun gi nekkoon ni nuun gi nekk laa euh, nuun gi addanii la woon nuun gi soppali ko daal di nekk laam muy addali waajalal na ma suñ borom daan ne ko waa kay nii la ginnaaw waajalal na ma nga wax nag léegi waxoo waajal na ma waajal na ma ma nekk ajal moom boo ko waxee dañuy dew ndax dama lay jox rek damay sotti rek muy ñëw bu waajalal na ma nag léegi kon danaa leen jox loo xam ne duñu wuti duñu duñ jug di wuti fenn dara duma leen jox lu bari ba ñuy beew waaye duma leen du ma leen du ma leen du leen toroxal ba ñuy ñàkk kon alal saa yoo ko yoree rek te jëfandikoo woo ko ci wàllu googu mbewte googu la lay indi kon fi ñu tënke mooy gis ngeen ne kon wërsëg ak barke ak alal ay mbir la yoo xam ne mën nañ ko war nañ ko di ko jàngat wërsëg ñu ko suñ tubaa jàngate am na lu jëm ci wàllu pas-pas am na lu jëm ci wàllu ruux waaye yooyu yëpp nag bu ñu ko bàyyee xel bu baax dana mën a defar suñu nekkin ak suñu dundin wërsëg dëgg-dëgg bala ngaa xam mooy lan il faut ngay teewlu ay dawaabit qiimiya lu jëm ci wàllu jukko ci suñu comportement mun mënuta ñàkk ñu defaraat ko ci suñu diggante ak suñu borom waaye suñu diggante nit ñi nga xam ne ñoom lañu jàpp ne suñu wërsëg ci seen loxo lay jaar ndax loolu moo ñuy mën a indil ak digg doomu loolu moo ñuy mën a indil ak équilibre barke ni ko suñu Tuubaa jàngalee dafa am lu koy sabab dafa am nuñ ko mën a xàmmee dafa am ay dimension dafa am nuñ ko mën a théorie dafa am nuñ ko mën a analyser alal ak barke ak wërsëg yépp bu ñu ko boolee moom it dañuy gis ne lépp euh, Sëñ Tuubaa jàngale na ko ci jàngale nu wu leer kon alal joo gis moo xam muy lu leew wala muy araam wërsëg la wërsëg na ba alal nag moo gën a xat wërsëg ndax alal bu ñu koy wax mooy day leew rek barke kon mën naa nekk ci mën naa am ci alal mën naa am ci wërsëg saa yu ci barke amee dangay gis ne alal ji day gën a yokk wërsëg bi day gën a yokk day gën a am njariñ day gën a taar saa yu ci barke barke jugee da ngay gis ne day gën a manqué wa billahi tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah jërëjëf ustaz e, sëñ Abdou Khadir Bousso ci bind yooyu ñu jàpp tey ci diggante wërsëg ak barke ak alal te bi ñu bi waxoon nañ ne lim ñu nar a wax mooy njàngaleem sëñ bi comme lim ñu wax ci wërsëg te mu andil nu ko ci ni ko alxuraan jàppee te muy loo xam ne moo xam lu dagal la moo xam lu dagal la lañ koy jàppee wërsëg bind bi ñuy jàpp foofu mooy gisees na ba tàyyee wala dees na wax ba tàyyee diw boroom wërsëg la dëgg la boroom wërsëg la ndax ma ngay jëfandikoo alal wala dara waaye nag nañu def ndànk tuuti balaa ñu ko ñee ca wërsëg woo muy jëfandikoo ndax nekkul ne nit ka lépp lu mu jëfandikoo rek lu wërsëgam la comme wërsëgam la rek mën naa am mbaax na déedéet kon Sëriñ Abdul Xaadir leer na nañu ne nit léeg-léeg mu jëfandikoo wërsëg te fekk wërsëg woowa du lu baax ñaareel bi itam mooy ni mu ko waxee nga xam ne dëgg-dëgg njàngaleem sëriñ bi foofu lay feeñee mooy sëriñ bi dafa jàngale wërsëg ci ne ñaar la dafa am lu ñuy laal ak loo xam duñ ko laal sëriñ bi nag ci lim ñu gën a soññ mooy wërsëg wi nga xam ne dees ko laal te mooy wërsëgu ragal yàlla wërsëgu sàkk xam-xam ba am ko wërsëgu bëgg lu baax wërsëgu dundal sag ruux ndax wërsëgu alal <coughs> ju ñuy laal yaram lay dundal walla ab entourage waaye léegi liy dundal ruux dëgg-dëgg nag wërsëg woowu moo mat a moo mat a sàkk mu wax barke barke mooy day mel ne moo ëpp solo ci ñaari yi ñu doon waxtaane mooy loo xam ne nit ki su ko amee lam fekk mu yor ko barke ba da koy gën a sax da koy gën a baril su fekkee lu neew la su baree mu gën ko mu yokk ko ba mu gën a bari su neewee mu yokk ko su fekkee lu baaxul loolu la mu baaxal ko te sax kon day mel ne dëgg-dëgg murit barke la war a sàkk waaye du alal waaye du wërsëg ndax barke mooy topp nit ki ba yowmal xiyaam ndax dëgg-dëgg li ñu fi andi comme ni ko sëñ Abdou Khadir waxee mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon day mel ne barke moo ñu ko moo ñu ko mën a may mooy jaamu yàlla gu teey te suñu génnee àdduna itam barke boobu mën nañoo mën nañoo topp ba yomal xiyaam ngir ne suñu wërsëg sàkko woon nañ ko nañ ko war a sàkkoo mooy sàkko nañ ko ci lew jëfandikoo ko fu dagan joxe nañ ci suñu alal yi tam sàkko nañ ko nañ ko war a sàkkoo jëfandikoo wuñu alal juñ war a jëfandikoo lekk ñu lu ñu loolu dëgg-dëgg mooy barke te loolu la ñu Sëriñ Tuubaa sàkkuloo kon li ñu jàngatee ci bis bi rek mooy dañ jàpp ne murid yi bu ñu fi jógee bu ñu dégloo Sëriñ Abdul Xaadir li ñu Sëriñ Tuubaa di wëtloo ci àdduna mooy barke mooy wut alal di ca jaamu suñu borom di ko bokk ak nit ñi bañ caa bew bañ caa yëg sa bopp bañ caa fàtte suñu borom mi la ko jox ndax wax na ne suñu borom lu mu la jox da koy jëlee ci sa borom li muy wax dénkaaneb sëriñ bi ci sàmmalaw bi kon dañuy daaneel foofu sunu kàddu di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàllale jotaay yi ba jotaay bi ba nit ñi mën koo topp feneen tàmbaleeku ci waa Muxaddamatul Xidma TV gi nga xam ñu nekk ci jumaa ji Lamp Fall TV ak Alxadimiya ak jant bi fm ak ceeñeer fm ak timis fm timis tv kon ñu joxe daje suba insha allah ñu war a waxtaanee al i'lam wa dar wa dawruhu fi xidma fi xidmati al muridiya ñu ci ànd ak euh, sëñ Cheikh Fatma Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir ñuy ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp nangul nu suñuy góorgóorlu te faral nu suñuy rëcci rëcci wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu